Mhm. waa MDM mouvement Doolil Macky comme ni ko turam waxe dafa ñëw pour dolli ay militants président Macky kenn ku ne xam na ni président makisal am na ay militants parce que moom lañ fal président de la République élection yi mu jaar yëpp moo gagné législative yi en taux de 63 pour cent référendum bi ainsi de suite donc am na doole mais doole ci wàllu politique du doy loolu moo tax. man ba mu amee chance bokk ci audience boo xam ni moo ko woote moom di sàkku ci sëñ Abdou Fatah Mbacké mu jàppale ko sur le plan politique te kenn ku ne xam na samay relation ak sëñ Abdou Fatah euh, man ma jël engagement ci kanamu président jàppale ko ci wàll politique jàppale ko ci caajaay fi ma dëkk mais jàppale ko également à Thiès su fekkee président jox na ma ci ndigal président daal ma ci jox ndigal loolu moo tax bi ma ñëwee Thiès sama mouvement maa ngi ko jéem a taxawal ñu ngi jaay carte yi à Thiès tey ñu ngi def tournée dans le Diobass di installé ay comité du mouvement MDM euh, dinañ installer fukki comité tey euh, comité yi c'est des comités de cinquante personnes donc fukki comité yi ça nous cinq cent militants jarta xeeb semaine prochaine wala semaine yi di ñëw dinañ dellusiwaat parce que responsable yi ñu fi am ñoom jot nañ fee jaay au moins un millier de cartes Ce qui fait donc 20 comités que nous allons installer dans le Diobas. Je profite de l'occasion nga baal pour vraiment nuyu sama frère Alioune Sarr le ministre maa ngi dans sa commune mais dama bëgg aussi mbir mi leer ma pour marché dans ses plates-bandes damaa ñëw pour dolli ci liggéey bi mu fi def dans le Diobass kenn ku ne xam na ni AP euh, euh, AFP c'est un parti de la mouvance présidentielle ñoom ak président Macky Sall ñoo lëkkaloo dans le cadre du Benno Bokk Yaakaar di liggéey ensemble mouvement bii ma indi dafa ñëw pour dooleel structure boobu nga xam fekk naa ko fii kon maa ngi au passage di nuyu mon frère euh, Alioune Sarr di ko féliciter gis nañ liggéey bu rafet bi mu def dans sa commune di ko ci encourager di ko wane nañ ko tàllal loxo li ñu jot am fii mën nañ ko booleeg li mu am pour gën a dëgëral président de la république ay taxawaayam fii dans le Diobass. ay mouvement ne mouvement yi ñoo indi ay problèmes lan ma war a doon waaw man sama taxawaay dama bëgg mu doon d'abord taxawaay buy fédéré wax naa sànq ni cees euh, am na ay responsable APR de valeur euh, duma ma leen lim xam ngeen leen yéen ñëpp ñoom ñëpp kenn ku nekk euh, yaa ngi béy sawar di góorlu di yaatal langu président de la république. li ma leen di invité rek mooy ñoom ci seen bopp ñuy gën a def concertation ci seen biir di gën a waxtaan di demlante vraiment boole seen doole pour jàppale gën a jàppale président Macky Sall au niveau de Thiès ñun bu ñu ñëwee fekk leen ñu doon benn ñu dankaloo di yëkkatoondee di dóorandoo ñun li ñu indi ñu teg ko ci seen loxo loolu defe naa ëllëg mën naa yokk ndamu président de la République à Thiès. donc président Macky mën na euh, am Thiès si wàllu politique euh, waaw man gëm naa loolu parce que ku am gis-gis wàllu politique am une lecture politique boo xoolee histoire politique bu cees di nga xam ni dooley président Macky Sall day gën di yokk non seulement dans le parce que gis ngeen ni élection yi mujj yi <laughs> moom jël na département bi mais dans la commune également électorat mi ngi yokku bu baax kon responsable APR yi fi nekk bu ñu gënee boole seen doole gën a nekk benn. ñun ñi nga xam dañoo ñëw en renfort ñu do ñu dolli li ñu indi man gëm naa ni élection législative yii di ñëw président Macky Sall mën naa am ndam loolu moo tax am na benn interview benn journal boo xam ni dama ko dañ ko titré euh, Thiès peut entre dans l'escarcelle du président Macky te loolu man gëm naa ko. Euh, euh, waaw xam nga li may def nii dama ci am ndigalu président Macky te it am naa ay yoon yu ma jaar pour que lépp loo xam ne dégg naa ko fii muy ay doléances yoo xam ne eggagul ci moom. mën naa jaar ci yoon yooyu pour que loolu yegg loolu mooy li ñuy xaar ci président Macky Sall mais am na ci loo xam ni responsable yi à la base ñoo ko war a def du président makisal Sall mooy wàcc di jàppale ay ASC e. fii dégg naa ASC e yi amuñu bal amuñu maillot yooyu ñun responsable yi nga xam ni ñoo nekk en contact permanent avec les populations ñoo ci war di ci góor góorgóorlu donc façon doléance boobu ma dégg concernant l'ASC e, man dinaa ci euh, béy sama waar jigéen ñi également seenu jàppale am na geste bu ma def ci ñoom leneen li nga xam ne nag ay électrification la dem ci ay yoon yi war a ñëw fii ak vraiment classe su CM yeeg yooyu ñu yokk ko loolu non seulement dinaa ci waxtaan ak sama xarit le maire parce que xam naa ne mi ngi def ay jéego yu am solo dans sa commune mais également dinaa ko jottali kilifa yi nga xam ni mën nañu gën a appuyer le maire pour que doléances yooyu ñu mën koo ñu mën koo saafara. waaw loolu sage-femme bi moom ma ko wax léegi loolu également dinañ ci waxtaan ak kilifa yi ñu ci war a waxtaan ba incha allah ñu jëm ci indi saafara. voilà merci beaucoup.